ayca dadi si c'est le moment ayca c'est le bon moment. salaamaaleykum. ayca tey loo <laughs> yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla ba baax. lépp a ngi dox. waaw mi ngi cool de. ngeen def ak coono yi. waaw ngi sant yàlla bu baax a baax. ñu yëmbal. naa yor ay bor rek. <laughs> maa ngi leen di jàmm. <laughs> rek a fay ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu ah, baax. tubaarikàlla jigéen bu baax ji Aba maa ngi lay nuyu bu baax a maa ngi lay fay di nga xamante ne si falaa jugee mu di yëmbal. Mm-hmm. bu baax a baax di leen mm-hmm. leen ziar di ni émission bu baax bi commencé te nag mm-hmm. ci heure bu baax bi. waaw ah, kay tubaarikàlla ban heure ngay dem tey Thiès. Thiès waaw Aba man yow laa bëggoon a àndal. ah seen nawle dafa xewle tey. waaw waaw waaw sëñ Ba hmm. cas pili pili. Oh. bu wootee cas show ci Thiès. <laughs> bii jeex na. Samsu Prestige man damay dem ci résidence la Dior ba. tudd noppalu ko ba vingt et une heures. ma laal Samsu Prestige yëngal ko ñibbisi. Thiès woo na ma Sénégal ñu ngi lay xaar waa Thiès ñu ngi lay xaar. ayca nañ dem. ci actualité information yi nga xam ne moom moo fi ñëw tey. waaw xam nga abaa mhm. euh, boo gisee tey euh, lu ci bëree bëri ndekete dof yi dañuy nekk ci biir nit ñi mhm. waaw waaw da am ñoo xam ne ñu ngi sañse di solu mhm. ndekete ay dof lañ ñi ñuy wooyee ay dof ñun dañoo dañoo dañoo manqué xel rek waaye dofuñu ah. parce que waa ji dafa yoroon téléphone am doon fay courant 3500 jaawale fay 3 millions 500 waaw courant la doon fay xëy suba dugg ci tata bi daan na day dem Senelec daal di toog ndekete waa ji mu jëndal wérul maanaam dof la dof bi ne ko foo jëm waa ji ne ko Senelec wante xaw ma ci biir journal bi waa ji jaar nañ Fass Mbao muy nelaw jaar nañ Kër Massar muy nelaw oto bi dem ba rond-point New York waaj di bu fekkee dafa sori tam mu ñëwaat ba rond-point Colobane wàcceel rek ñëw ba rond-point Colobane waaj di nelaw ñu dem ba ci fi mu war a fayee courant Colobane ak New York New York est-ce que amul New York ngeen arrangé wu ne ñëwaat rond-point Colobane ok waa ji ñëw ba rond-point Colobane ñu yegg ba fi ñuy fayee courant dox bi xool waa ji xool Senelec bi xool waa ji xool Senelec bi oto bi continuer oto bi dem ba terminus ba ñëpp di wàcc dox bi yee waa ji ba waa ji yeew mu ne ko ku baax ana Senelec bi mun ne ko dama laa gis ngay nelaw moo tax wér bi ma wér moo tax may la naa la woon ki moom Senelec fi mu dëkkee ki gaañu ma fi mu <laughs> bind ko ko journal bee ko bind pour pour mu jot xaalisam foofu la gën a yombee dëgg la xam nga tey kii moom Senelec bi tarkal boo ko yóbbu ko même boo réeré ci Senelec bi moom mën na laa yóbbuwaat am benn problème am benn problème mais euh, lan la yéenekaay yi wax ci xale yu góor yi nga xam ni waaw dari dañuy doxat waaw mais bu ñuy doxaan. waaw du ñu yem ci simplicité rek dem doxaan. déedéet mm. dañ lay dig yoo xam ni. Mm. wallaahi da ngay xam ni. wallaahi dañuy daraage te nangoo ko bis boo nangoo duñ la ko jox lan la yéen a kaay wax ci ñooñu. xam nga euh, Aba. bëgg maam euh, doxaan wàññiwul dara mais li gën a bon mooy ngay doxaan. di liggéey amoo ko ba nañ bàyyi diggee Aba. dem naa ndar. ma daje fa ak nit koo xam ni bi xale bi dee ñëw man maa indiwoon xale bi. waaw mais waa ji xaw ma lu mu dig xale bi. li xale bi man xaw ma lan la ba wëlbati xale bi. yàlla baax na. maa ngi jégalu maa ngi jégalu Pape Samba maa xam nga waa ji daf doon génn ak booy bu jigéen bi mosuñoo gisante par Facebook la ñu xamante ñu jëlante ay numéro commencé waxtaan wala sax waa ji doxaan na booy bi booy bi nangu na. xaw ma lu mu ko wax nag ba mu nangu xaw nangu nañ. waa ji gel bi na ko dama lay invité waa ji avant mu ñëw lu ne dig na ko gel bi su ma ñëw naa leen indaaleen oto bu oto bi jàllee trois jours laa la may dama lay jëndal avion eh. lu ne dig na ko man bañu ko mu digal ko mais après fu ngay dawalee laa koy laaj. ma jaaxal yow ci loo toog. ko Aba journal bee ko bind. baxal yéen a kaay moo ko bind. yaa ngi dégg waa ji benn jour mu ñëw ñu toog gel bi defaral ko mu lekk defaral ko mu naan jox ko ay jus mu naan. Euh. mu ne ko bébé ana li nga ma digoon. wàññi ko pour wax la dëgg de sama mbëggeel moo ma sonaloon rek mais man aw aw ma sax liggéey. Euh. gel bi tàcc ko xas ko ba mu rab ne ko yéen góor ñi ñi ci bari yéen a yëpp ñun ñëpp ay mbaam ngeen <laughs> PAM waaw fi ñu waxee loolu téléphone xale bi jigéen bi sonné bi mu sonné mu décroché ndeke papa ji la mu teg ne allo papa góor ñu ne ko ah waaj ne ko ah xanaa kon sa mbaamu yaay bi mooy wax <laughs> ñu góor ñëpp ay ay mbaam la. dëgg la wax na ko dëgg. waaw war na ko dëgg eh eh Lam. yéenekaay bi yéen la bind de <laughs> trois balles bi yéenekaay trois balles bi yéenekaay yi ana ñoom Lam. <laughs> ñi pare fu rek expert kaay leen bin nañ leen ngay lan la leen yéen kaay bi wax waaw xam nga tamit Aba nañu bàyyi euh, ñi nga xam ne dañuy nekk ci pari foot yi hmm. parce da ci am benn paa boo xam ne dafa nekk ci koño di sëriñ sëriñ bi an bàyyi leen pari foot pari foot baaxul yàlla bëggul koy pari foot en ah, génnee benn aaya wala xal xii xal xam xul xii xii wax moom daal wax na lu ne daal ba baaxul <laughs> mais paa bi jabaram moo feebar bindu ma ko de pour ngeen bàyyi xel rek ah. journal bee ko bind paa bi jabaram moo feebar jabar ji jël yére yi kon ne comme tilim na te mënu ma ko fóot te damaa feebar naa ko jël jox ko fóotkat bi mhm. bi ñu demee jox ko fóotkat bi bi di làmb pour xool ba xam amul xaalis wala luy tooy mu génnee ticket pari foot bi nekk de paa bi daa tàllal xam nga ñoo gars yi benn match la lisee moom nekk de 24 la see yu bari ah. moom ay 24 match yooyu la see mu jël pari foot bi dem yóbbul ko paa bi ne ko père moomoo li mu ne ko Barça moom rey dama sànni baaxul <laughs> yaakaar naa ni ah yaakaar naa ni eh, sant nañ la gërëm nañ la eh, amoo looy waxat <laughs> fii parce que yow parce que yow dafa am dafa am lu Sénégal tam ñaari nit ñooy toog di la jëw sa ñaari xarit mm. nga tomb ci ñu naan xool ko ak bëgg turam <laughs> barke sëñ <laughs> ñaari nit sa ñaari xarit ñooy toog di la jëw nga tomb ci ñu naan la xool ba nga bëgg turam waaw <laughs> wax nga dëgg de waaw wax nga dëgg. dëgg xam nga <laughs> xam nga c'est technique. li tax ma dem taxaw ci moom ne. vidéo bi xam naa problème dina ma ko daggal pour ma feeñ ci man ak <laughs> dëgg la de wallaay dëgg la nga ni kenn ngay sant. ah maa ngi sant waaw mm. a ñàkk rek yëmbal nga sant nga ñëw ba fii metti ku nekk ci jàpp. wallaay sant Arafat Shop Aba. ma nga nekk ci diwaanu Pikine rond-point mm-hmm. fii tubaarikàlla gis mm-hmm. sant bu baax a baax a baax a baax ayca euh, numéro mun nga def 77 ana numéro bi. waa koy numéro bi 77 968 ah 33 87 968 33 87 bu ngeen ko woowee rek dina leen defal lu baax ah. ñu koy kontaanee bu baax jox na la sama mbuus. jox na la ko ma nga fee. ma nga man Aba. dafa am ñoo xam ne tamit euh, dañu ma bëgg di jox ay journal. Mm-hmm. ma am ay information nga xam ni fii bu ma fi toogee rek. joxe lu leer lu wóor. dëgg la am lenn lu ma fiy dafa am numéro bu ma leen bëggoon a jox Aba. Euh, pour ñu ma ci envoyé. information. temps inspiration. Euh, numéro di wax gars yi <laughs> <laughs> sant naa bu baax a baax ki nga xam ne moo ma jox ay mbuusu yére daal di may boole waaye santaat naa bu baax a baax laay bu deef euh, nga xam ne dafay jaay ay yére euh, en ak euh, li nga xam ne mooy détail foofu ca Petersen ah, en face Orca ñu ngi koy kontaane bu baax a baax a baax laay doom yaay kals ñu ngi lay bëggee bu baax a baax